canal ñële ndox yi jóge kuli ak njaayloo ak yooyu ñoom la ñu jaar ci benn canal ci benn vitesse boo xam ne ba daaneel na fa benn kër ñëpp a ngi taxaw kenn mënutul génn mu doon diggante boo xam ne daal vraiment suñu sañoon sapeur yi ñëw mën a xool pexe nu ñu génne population boobu quartier bi ñu tuddee 700 ak 800 ñu mën leen génne ba ñu mën a lekk seul mu lekk parce que fi mu nekk courant beeg ndox mi yëpp coupé na ndox bi ni muy doy fii vitesse boo xam ne daal ëpp na daal moo tax ñun ñëpp ñu ngi ci jaaxle amuñu ci benn solution benn benn benn benn solution léegi daal li ñuy ñaan waa rajo jàppale ñu wax leen message bi ñëpp ñëw sauver ñu ngir yàlla ak yonent bi parce que ay xale mag yeeg ndaw yeeg kenn mënatul dem te tout de suite li des ci bi léegi mu daanu ndox bi ni muy dawee nag mënu ma ko mënu ma ko expliquer parce que xool na trop ñu ngi sàkku ndimbal daal képp kuy autorité boo ko déggee ngeen ñëw taw feex yaakaar bu ñàgg taw feex yaakaar bu ñàkk vraiment secourir génnee ñi mënul jaar de waa quartier bële parce que amatuñu benn accès pour génn ci population pour génn jërë ngeen jëf merci Mor Ndiaye depuis taw feex yaakaar village numéro 22 moo leen doon ñaan ndimbal pour population non non daa ko démb la a jaar la fi nit mën a jaar yooyu tey kenn jaar fi génn